doxalin bi ñu nam ku soxal wàllu ndox mi ci dëkku kaw yi nag coono bu méttee métti li jural askan ya fay yeewoo li waral kuréel bi ñu duppee front lit doy na taxaw temm ngir xeex li ni mel moom nag ki mu ci joxoñ baaraamu tuuma di këru liggéeyukaay canadien bi di Aquatech. te asifor boo xam xamante dem nga ba ñu lay jox ay distinction au niveau national ñooñu gisuñu. solos nga ñëw ne leen yéen dem leen ngeen toogee ji ñale wut ay opérateur privé yoo xamante ni daf leen di wutu non seulement dañu leen di wutu mais dañu seetlu ne depuis que gan ñoo ñu ñëw fi ba léegi ñu leen di wax Aquatech ba ñëwee ndox doyatul réseau bi am na problème te ressources yi nga xamante ni moo doon dellusi ci askan wi ressources yooyu gisatuñ ci askan wi gisatu ci dara Aquatech ñëw na Mérina Dakhar bi mu ñëwee jël forage yi ñun waxuñu dara bi mu ñëwee mu jël dénk ko ay nit gestion bi parce que comme moom nekku fa mu jël gestion bi dénk ko ay nit nit yam ko nit yam ko dénk par expérience ñun xamante nañoo ak ñoom ñoom ñoo dëkk ñoo jàngandoo ñooy nekk mais ñoom par expérience kenn ku ne fa nga nekk fa nga jaar gis nañ na nga fa jaare ay ñaawteef mu nga fa def ay jafe-jafe kese nga fa bàyyi te ku nekk fa nga jaar tey nekkatoo fa te lu tax nga jóge fa tey sa jëfin moo tax nga jóge fa ak sa gestion moo tax nga jóge fa nit yooyu la Aquatech jël dénk leen gestion bi foofu nit yooyu di fekk di dund ci ndoddu askan wi. ay semaine ak ay mois a ngi nii ñii ñu ngi naan Akilee Senelec scandale la ñii ñu ngi naan Akilee Senelec du scandale est-ce que dégg ngeen suñu mbokk yi lu ñu wax. Aquatech dafa jël ndox bi ci dëkk bi jëlee ko mètre cube cent vingt cinq yóbbu ko deux cent cinquante francs ndax scandale mun na ëpp loolu ñu jël sa ndox yow bi nga xam a yow mii di Touba Toul ya yore won sa ndox ngay jaay mètre cube bi francs nga ci tabax ay case de santé di ci tabax ay poste de santé di ci prendre en charge ay étudiants di ci prendre en charge ay malades ngay mètre cube bi francs le mètre cube Non, scandale mënu ko mënu ko wessu jafé jafé yi du laal na it lii di njaayum suuf mi ci dëkku kaw yi ci mel ni Kignabo ñu tudd ci nag Maysa Dégéen ngoom di rakk ci Babacar ngoom bu Sedima gi Mari Sagna ak i àndandoom di artu suuf si nga xam ne waa Kignabo ñoo ko moom suuf si nga xam ne moom kese moo ñu dese assiette foncière bi nga xam ne mën nañ fa mën nañ fa am dëkkuwaay parce que la fa nekk ñëpp ñoom jaay nañu ko jaay nañu ko

au virus nos vies et notre santé li ñuy ñaan président Macky Sall mu dégg yuuxu waa Thiès Diourbel Mbacké moy nous ne pouvons pas laisser notre eau nous ne pouvons pas laisser notre vie à des privés pire à des privés étrangers àndandoo yi Guy Marius lenn rekk moo leen soxal di këru liggéeyukaay bi di Aquatech jóge fii ñoom xamle nañ ni sax duñu ci yam ndax dinañu wëjal xeex bi ba ñu delloo askan yi yeewoo ci dëkku kaw yi seen moomeel